waaw asalaamaaleykum mbokki internet yi wala min TV ah nuyu nañ leen bëggee nañ leen jaajëfal nañ leen wéru koor ñëw na ñu ngi leen di balu ak di bal ñëpp di ñaan yàlla ah may ñu katan bu ñu eggalee weeru koor gi nangu suñu koor nangul ko mbooleem jullit ah mais wéru koor gi nag wala min TV dañoo ñëw ak yéen ci émission bu ñuy wax ndogu mbër rang muy ndogu mbër ah dañuy fekk mbër yi gis ni ñuy ndogoo waxtaan ak ñoom ci koor gi mais waxtaan ak ñoom si làmb ñu koy commencé nag hmm, mardi incha allahu rabbi mardi bii nii Joal Fadiouth lay doon tout droit Joal ban champion mbin bu Joal nga xam ne def na ay ay exploit ci saison yi bu mu tijjee ak léegi mbin ñu dem fekk mbin njool hmm, biir Joal biir njindayem ah fekk ko marché bu ndaw mbin ak ay dëkkandoo mbin njool ak ay supporter mbin njool ah ak ay mbokki mbërëm voilà ñu ngi ñëw incha allahu rabbi mardi incha allah yaatal xool mbin njool nan la wooree mbin njool nan lay ndogoo waxtaan ak moom si loolu waxtaan ak moom si lam kon rang muy mbin njool tout droit Joal ndeyam ñu ngi ñëw incha allah marché bu ndaw xaar leen ñu ah mardi incha allah ci Lamyn TV lay doon bëggee kontaan si yéen ñëpp.